bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi wakafa wasalaamun ala ibadihi alladina astafa bokki almuhibuna lil abdul xadim noo ngi dellusi ci sunu jotaay bi ñuy faral di seq ay bis gu ne tey nag nuy waxtaane def am am ci yoonu yàlla nit ki mu am mu def ci yoonu yàlla wàccuwaay ban la am ak it yan bunt yan bunt lan ko mën a def alal ci yoonu yàlla moom tey lu am wàccuwaay bu kawe am pay gu mag a mag na ci li pay gu mag gi yàlla wax ne kiy def am amam ci yoonu yàlla day mel ne ku jëloon wenn pepp ji ko bi mu saxee màgg juróom ñaari gub génn ca gub wu ne am téeméeri pepp téeméeri fepp te sax loola itam sax yàlla dana ko fulal ku ko sopp loolu mooy kon day mel ne payub jenn jëf rek dana àgg juróom-ñaar téeméer te mën na koo weesu loolu kon day wone màggaa gi mu màgg ak pay ku màgg ci mën a ame muy def alal ci yoonu yàlla ku yàlla di limee ñay njëkkante jëm àjjana daa leen ca boole ku muy waxee lu baax it naan di wax ak mbaax mooy lañu dana ca boole loola dana ca boole def alal ci yoonu yàlla kon loolu dana wone wàccuwaayu def alal ci yoonu yàlla def alal ci yoonu yàlla nag ay wuntam bari na am na fu ñu war a tàmbalee teg ca ak luñ cee teg ak luñ teg kon am na nuñ ko war a toftalee la ca jiitu mooy li nit ki di def ci boppam xëy na ñu bari bu ñuy wax def alal ci yoon yàlla dañuy xool fu sori mi ngi tàmbalee ci li nit def ci boppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon li def ci boppam moo jiitu ak li def ci njabootam topp ci leneen nag door a ñëw def ci yoon yàlla am na ci lool farata lay doon am na ci lool du doon farata waaye lu ñu sopp lay doon wala bu neexee ne sunna lay doon yi ci doon farata am na ci lool àq yàlla la am na ci loolu àq nit ñi la day àq yàlla mooy asaka asaka li ci gën a siiw nga xam ne moom ñëpp la mën a la mën a mën a dab a saka ak lu ko nuru li ci doon àq nit te muy lu war mooy nit ki li muy def ci boppam akum njabootam ci aajo yu ta ñàkk li muy dundale boppam ak li muy dundale njabootam ñu ñu ñu mu war a dundal daal loolu moom farata la lu génn loolu nag la cay cosaan mooy loolu ñu sopp lay doon lu ñu xemmem loo nit ki lay doon lu ñu xeet nit ki waaye nag àggut ci def ci yoonu yàlla nag niñ ko waxee woon li jëm ci nit moom li nit def ci boppam moo ci jiitu mooy li mënta ñàkk ci moom ab dundam moom fu mu dëkk yu mel noonu ak ak njabootam ñu mu war a dundal tam lu mel noonu ci ñoom ay soxnaam ay doomam ay waajuram bu fekkee dañoo amut bu loolu jàllee nag mu door caa teg leneen lu mu cee teg yonent bi moom mas moo wax lu mel noonu daf ne tàmbuleel ci sa bopp teg ci ñi nga njaboote ngay dundal door caa seet nag ku gën a jege ku gën a jege topp am fu mu ne li nit di def ci yoonu yàlla la ca gën ëpp ca ab yool mooy li muy def ci bopp mbokkum njabootam kon loolaa jiitu ko waxee bu dee àq yàlla ji mooy asaka bu dee àq nit la cay farata mooy yooyu ñu wax la ca dul farata mooy li ñu mën a tudde sarax sarxe ak maye ak lu yor àttub sa àttub ak maye lu leen wutale sarxe mooy ki ki ngay jox la tax nga jox ak aajowoom ak aajowoom moo tax day ko ajo woon ndimbal te buntu boobu nga ko joxe loolu la ñu tuddee sarax maye nag mooy li tax nga jox ko bàyyiwoo ci xel ak aajo woom ak ñàkk aajo woom seetoo ko danga koo jox rek loolu mooy may kon képp koo xam ne jox gi koy jox xooluñ ci ak yeyoom dimbal waaye leneen tax rek ñu koy jox daal rafetal seenu diggante dëgëral seenu diggante bëgg di di di dabu ak cofeelam ak yu noonu loolu la tuddee may bu dee nag li tax nga jox nit ki mooy aajowoo gum aajowoo euh, ku ko dimbale bu dee loolu mooy doon sarax loolu lépp def alal ci yoonu yàlla la euh, te nag ak bu ci nekk farat def alal ci yoonu yàlla kon yaatu na njariñ ji mag na yool bi màgg na muy tuyaaba ji waaye lii tax nit ki mën ci am tuyaaba jooju nag mooy mu sellal ko sellal ko foofu yàlla di waxe joxe misaal ci ki def alalam ci yoonu yàlla joxe ko misaal ci kooku di ji wenn pepp da toftal nak wane ne am yak. lu ya ayuha alladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal ada mune bu len yak nak sen def ngeen def sen alal ci yoon yalla bu len ko yak yak gi mu tuddu ci ñaar wala sax ñet mu tuddu defal nit ki ba noppi di ko ko xoole ak di ko ko fàttali di ko ko won daal di ko ko won jox nit ki ba noppi foo toll di ko won wékk démb rek laa lay defal nangam wala maa lay defal nangam loolu day yàq jëf ji waaye tuyaaba ca tuyaaba na caa ñàkk boobaa wala lépp luy xeetu lor woo xam ne rek bi nga defalee nit ki ba noppi loraat nga ko ko ngir liñ ko defal loolee day dàq day dàq day yàq la nga doon def ak it ngistal ngistal itam day yàq jëf day yàq itam def alal ci yoonu yàlla kiy joxe alalam te fekk ngistal la ci jublu bëgg nit ñu gis ko bëgg nit ñi yëg ko bëgg nit ñi fonk ko bëgg nit ñi naw ko bëgg nit ñi di ko waxtaane loolu lépp mooy ngistal boobaa day yàq jëfam mooy yool bu mag boobu yàlla wax moom bokku ci ñam ko def kon joxe alal ci yoonu yàlla am na yool bu mag mag waaye ka ko amee nag mooy ka nga xam ne dafa sell sellal googu lim doone sart ak ñàkk sellal ni muy yàqee jëf ba ci foofu yàlla doon waxee ci mbirum joxe ci yoon yàlla rek man cee leer laat lu mel noonu joxe misaal ci ki sellalul ni mi lim def ni muy ñàkk solo misaale ko ne ki nga xam ne day joxe te ak sell amu ca day mel na rek suuf suuf su tegee woon ci kekk suuf su tege woon ci kekk taw bu bari sotti ku ca benn yoon rek suuf sa di daal dem moom kekk kekkale des fa wow koŋ daan loolu leen nuru mooy ki nga xam ne dafa joxe te joxe ba sellalu ko ki joxe te sellal ko nag moom moom day mel ni suuf su nangu soo xam ne du kekk su nangu la ba noppi taw wàcc fa mu ñor am gàncax bu naat gis nga kon mooy li muy def ni mu koy amale njariñ ak kële la muy def na mu koy ñàkkale njariñ am na lu am solo te yonent bi leeral na ko mooy def ci yoonu yàlla du xàññee alal loolu tam nit ñi war nañ koy bàyyi xel ndax day mel ne kuy joxe day wàññikule waaye moom nag nee na du wàññikule kiy joxe am amam du wàññiku ndax joxe ga muy joxe dee tax yàlla di ko joxaat wax na ci baat sax wax nee na saa buñ xëyee yàlla day yebal malaaka moo xam ne day ñaan naan yàlla kuy joxe alalam ci saw yoon de ko wuutalal dee ko wuutalal mooy lu mu joxe rek joxaat ko leneen kuy téye alalam di ko may joxe nag dee ko sànkal da ko sànkal alalam kon ñàkk joxe maanaam naa wax ne mooy wàññi alal mooy wàññi am-am waaye joxe du ko wàññi da koy yokk am na fu ko yàlla misaal ci alquran di wax ne ñiy bëgg lu bari ba tax ñuy jëfandikoo riba nee na riba yokk lay firi yokk dañuy bëgg seen alal yokk waaye nee du yokk fa yàlla kii jël alalam di ko joxe ci yoon yàlla nag. kooka yàlla di fulal wala ñooñu ñooy ful seen alal gis nga ni ko wane kii joxe mu ne moom mooy yokk kii wut lu bari di ca dolli kookaay wàññi la ndax yokk ak wàññi ko mën naa feeñee ci barke ñàkk barke mooy kii joxe alal ci yoon yàlla la la cay des day laab bi yàlla di wax asaka loolu la ko yonente bi dana ko jëlal asaka jëlal asaka ci jullit ñi bu ko defee laabal leen ci laabale leen kon asaka ak joxe ci yoon yàlla rek day tax ba alal ci dess lab waye day taxit yalla barkel ko nak ta joxe nak teye man na tax yalla genné barke ca ca la ca dess te lu barkel nak moy li bari ndax lu barkeel mooy lu ñam bari lu barkeelul moy lu ñam neew te ko amuk setlu di ñàkk mu sétlu ko xamné lamuy am bari wut waye man ci faji aajoom bu baax du amuk jaaxle ci ak dundam ta lamuy am bari wut a sétlu ko xamné mom lamuy am bari na da fu tollu nek ci jaaxle ki ki am lu bariwut ci lim ta du nek ci jaaxle ndax ay aajoom ne ma nga cay fajoo kooku yalla da barkel am amam ki nga xam nak li ñuy am bari na cib lim waaye fajuti aajoom kooka barke daa amul ci alalam te kon dëgg-dëgg mbir mi mooy barke baril dëgg-dëgg mooy barke waaye du lim bi nekk sa kanam rek moo taxoon loolu lu lu mën a dégg la ci ne joxe ci yoonu yàlla day yokk alal waaye du ko wàññi téye ñàkk a joxe moo koy wàññi waaye du ko yokk sellal googu nag kon da ci am solo moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy lim eh, foo xam ne dafay lim juróom-ñaar ñooñ bu bis pencee ba mu tàng lool yàlla da leen di wutal ker boole nag ci kuy joxe ci yoonu yàlla te di ko sellal di ko nëbb ba ni ko waxee sax dane buy joxe càmmoñ bi du xam li ndeyjoor bi joxe da caa jublu rek nëbbu gi mu koy nëbbu lu bëgg ñu koy yëg ndax yàlla tax mu di ko def te yàlla moom dana ko yëg sellal googee ku ca àggale yonte bi wax dana bokk ci ñu yàlla di wutal ker bu ëllëgee tàngee ba jant jege li nekk ci tàngooru mette mette mett yàlla di boole na ci kooku kon lii cosaan ci sellal bokk na ci nit ki li muy def mu bañ koo fësal bañ koo fësal ndax fësal gi sax man naa tax mu diis ci ki ñuy jox tax mu diis ci ki ñuy jox ndax jël neexut bu dee ku am jom am ngor dëgg di jël du neex ci moom ñàkk fexe rek mën naa tax muy jël waaye du neex ci moom kon nag buñ ci dollee leneen day gën a diis muy di ko fësal wala di ko ko woon day gën a diis kon cosaan la ci gën mooy kuy joxe ci yoonu yàlla rawatina la dul farata nag ñu xam ne moom ci coobareem la koy defee nu bugg moo cay cosaan waaye léeg-léeg bu fekkee nit ki da koy feeñal ngir soññ keneen bu boobaa itam nag lu baax lay doon ndax léeg-léeg nit bëgg xiirtal nit ñi ci lu mel noonu te xëy na mënut wax ak ñoom waaye bu defee ñu gis man naa tax ñu roy ko ca bu dee loolaa tax nit ki fésal li muy def moom loolu lu baax lay doon waaye li ñuy bañ ci fésal rek mooy jublu ci nit ñi xam ko ngir am am fuñ la ci tege ñu teg la fenn wala yu mel noonu. loolu mooy doon ngistal waaye ku fësal li ñuy def ngir bëgg ku ko ca roy lu baax lay doon yàlla am na fu muy waxee ne bu ngeen feeñalee ngeen di joxe baax na waaye bu ngeen ko nëbbee ngeen joxe baax na waaye bu ngeen ko nëbbee moo gën yu mel nii daal mënees na ko tënkee ci joxe def alal ci yoonu yàlla noonu ko waxoon nag yoonu yàlla yaatu na am na ci lool loolu farata am na ci lool farata luñ sopp la waaye la ci jiitu mooy jëmmi nit ki ak njabootam topp ci ak nag leneen lu baax bu dee li jëm ci nit ñi it kala gën a jege ci wàlluk mbokk ak wàlluk dëkkandoo ñooñu ñëpp kuy def lu baax man ko weesale boppam akum njabootam ma ca teg ne ko gën a jege ci wàllu mbokk ak ci wàllu dëkkandoo diggante yaatal te luñ cay def mu sellal ko bu ko sellal lañ ca jëre ci tuyaaba kenn du xam kenn du xam ni toll waaye ñàkk sellal bu ca amee nag lu mu def lu mu bari bari bari du ko amal njariñ ni ko yàlla misaale rek day mel ne suuf su tege woon ci fekk ab taw na ci yu rek na suuf say demee kenn du fa fekkaat dara lu ca bokk kii defoon te dugal ci njistalit noonu lay demee du fekk dara du fa fekk dara ci lu ca bokk bokk yi daal tey moom dama tabja tabja ba moo tax ma ne mënuma ñàkk tënk dara kon daal xëy na tënk bi moom dañ ci jàppeelu tey rek ay xëy na ñàkkul njëriñ lu ci nekk lu néew néew dana xam le lan mooy joxe ci yoon yàlla lan def alal ci def alalam ci yoon yàlla ak yéen buntu la am ak yool bi ci am ak lii tax yool boobee man caa am ak lii mën a xaña yool boobee maa ngi jéggul ñëpp nag asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu